صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد همد مقلد لبا salaatu lazi anumu abdan loo bi ala man bi li xaada sawan bila kadar fasaatu xayri lxalqi abda qasaayidi wa kawni bi abdan xadiman loo sahar ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا لو استهر صلاة ñun marché Ocass ñun fii comme ni demee secteur lañ boo xamante ni nii dafa yaatu mais secteur bi yëpp maanaam jotewu moo fële mais dañ koo dagg par secteur secteur yooyu nag dañ ko organiser ku ci nekk am ko jiite tey bu fekkente ne tey damay jël benn engagement aussi tamit dama leen woo am nañ bureau defee ñu ne ah dañu am engagement nangam ak nangam tel tel bu ko defee ñoom ci nekk da ngay joxe sa mais comme lu mel nii dama koy rafetlu parce que aussi tamit euh, kenn ci ñun ku ci am nga foofee mais su fekkente ne tamit suñu dëkk dafa am loo xamante ni dañ ko war a jëmmal suñu dëkk bay sa weewu tànk rang foofu la ñu tàmbalee kon lu mel nii dama koy jox solo soo xamante ne nii am na solo trop ndax euh, Abdoulaye Sylla 2017 euh, màggal 2017 moom moo ñu joxoon matériel yi ñu doon liggéey fii ci ci ci ci ci kii bi ci mbale mi jox nañu ay brouette jox nañu ay balai jox nañu ay gants jox nañu ay silé euh, te lu mel noonu raar na fii nii maanaam benn benn homme d'affaires wala kenn koo xam ne yàlla dimbalee na la dara raar na pour nga def lu mel noonu ñun ñooy jóg ak suñu mooy bopp kon ki defoon loolu démb li may wax en 2017 la kon tey suñu waatee amaat beneen taxawaay boo xamante ne ni soxlas boppam la c'est très normal ñun ñu jàppale ko c'est très normal parce que tamit ba muy jëflante ñun du tey comprends nga parce que bam koy def tamit ñun xamuñu ko xamuñu mais dañu dégg ne mi ngi def lu baax moom moo ñu interpellé que ni ñoo leen ma jox leen ay matériel matériel yooyu fii lañ nekk di ko liggéeyee xam nga te da koo def ngir Touba ngir doomu Touba pour wane ne moom fii la bokk te bu fii bu setee moom la setal mu def loolu kon kooku aussi tamit bu bëggee beneen cër bu gën a kawe c'est normal ñu jox ko cër boobu parce que yaakaar nañ ne suñ ko ko joxee jox nañ ko suñu bopp comprendre nga lii la kii wax nag moom loolu moom lu am la mën na ne man apériste la daan na ma tooñ ñaan ma ñëwal fii ma ne ko man euh, su ma àndeeg nit li tax mu garaaw li tax sama mbir xaw a doy waar mooy maanaam dañu ma dul yóbbu ci ay influence yu graaw yooyu man toujours mbir bu may dem ci direction laay dem mais nag su may àndeek nit moom moom mooy dem ba nga xamante ni nii moom mooy bàyyi mais man su ma xasee jàpp benn mbir rek jàpp naa APR nag ànduma foon ak kenn dama ko ko doon wax ne ko man mini andruñu am na kilifa fii ci dëkk bi wax nañ ko ba tàyyi mais mosuma dem Gaynde Fatma daf may woo ba sonn mais mosuma faa dem mais nag tey su yàlla defoon tamit ñu dem ba nga xamante ni tey jël nañ engagement pour wàcc ci terrain bi kooku moom beneen taxawaay lay laaj loolu moom su fekkee ne bëgg naa ma wax ci Ablaye aussi tamit euh, li ma mën a jël témoignage mooy marché bi daraan indoone surtout marché fraude bii nii daraan indoone ba fees mais keroog bi mu ko yegee benn tuyau la def benn benn canal la def jëlee ko fii ci marché bi yóbbu ko ba ci centrale bi nga xamante ne ni chantier bu duré la woon te tey te loolu dimbali na lu bëree bëree bëree bari ci ndoxu marché bi. te bu ñëpp defoon noonu defe naa ne marché Ocass du am ndox te loolu tamit ndimbal la parce que bu fekkoon ne mi ngi am ba léegi dana bëri marchandise yoo xamante ni seen borom du ko jëriñoo mais canal central boo demee mën naa laa dem ba ne la canal bi fii la déparé fii lañ ko indi lépp ay otoom ay matériel am yëpp ñoom ñoo ko liggéey ak ay ouvrier man ma fekkee te loolu siini mën na ma ci témoin bulu biti ko yëkkatiwaat 18 millions jox ko siini sama place bi lañ ko njëkk a indi ubbi fi ne ma 18 millions la ma Abdoulaye Sylla ma ne ko loo ci xalaat mu ni ma dama bëgg a dajale xalaat yëpp ba pare ma ne ko waaye nag bul fàtte ne marché bi war na am assainissement te am na ko mais nag environnement bi na nga ci bàyyi xel 18 millions yooyu oto mbalit la ci wut li ci des mu wutoon ci benn oto vidange te loolu aussi dañu mënta ñàkk ci marché parce que marché dañuy utiliser toilettes yi ordure bi toujours mi ngi dépôt taxawaay yu mel noonu nag ndimbal la ci ñun parce que soxla wuñu woon xaalis bi pour di ko def suñuy poche parce que duñu amal njariñ mais su fekkee am na benn objet boo xam ne mi ngi dimbale marché bi dimbale na population Touba parce que ku ci xëy si marché nga jëm muy man muy sama morom kon loolu bu ko nit defee aussi tamit sans autant que nag jàppale yi nga xam ne mi ngi koy jàppale man xamuma ko très sincèrement musuma toog ak moom musuma ko gis xamuma ko mais gis naa ay jëfam yu rafet te nit bu jëfee lu rafet aussi tamit da ngay apprécier kii def na lu rafet te loolu aussi tamit euh, li ñu wax naan ku la ku la jox ndékki jiglaañ bu lay diggee reer war nga ko mën a gëm ñun loolu war nañ ci mën a jàpp te loolu tamit tey équipe yi nga xam ne ñoo nekk marché Ocass te déggal ma te nga xam ne ñu ànd ak man sama xalaat doy leen am naa yaakaar ne buñ ci toogee waxtaan yaakaar naa ne waxtaan boobu réussir daal laa ciy gis euh, beneen bi li ci bëgg a dolli tamit mooy association bi nga xam ne moom lañ yor mooy association de marchands tabliers bu Touba kese senegal la Sénégal la dafa wër te tamit ñi ngi lijjante yeneen i nit ñoo xam ne ñi ngi ci diaspora bi te ñi ngi waxtaan ak ñoom ñu ñëw bokk si te ñu ku ci nekk fi mu toll nii tey ci ñoom man maa yor seen kàddu te lépp lu ma ci lépp loo xam ne xalaat la boo xam ne indi naa ko fa buñ ci waxtaanee déggoo dina ci am kon mel na ni mën nañ ko sosé Touba parce que association boobu Touba gi lañ ko sosé fii lañ ko créé te tey mbalem Touba mi am na benn taxawaay buñ ci def boo xamante ni nii mi ngi ci mi ngi ci mi ci internet bi ñu bëri gis nañ kon lu mel noonu tamit bu fekkee ne lu mel nii ñëw na kon dafa mel ni beneen liggéey ñëw na boo xam ne am na beneen taxawaay buñ ci war a taxaw te taxawaay bu am solo lay doon te njortu naa ne Sénégal yëpp danañ ci gis seen bopp rawatina ndaw ñi loolu daal laa gën a gis waaw di sant di gërëm jërëjëf ah. دربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه السلام من لوؤت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر firaari bilmuxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiiran ladal jinni wal bashar rabaatu kuran baada hamdin muqalladin li baaqin maa durra alladi hadu qadar salaatu alladi anumu abdan loo bi على من بي لي خاد سبوا بلا كدر فساعة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما له سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar fotohaati rabbil arsi an qad maa'ibi bijaahi lazi baahat bi man alaw mudar rabaayi fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zaydu rubhi wa fi safar رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفسات خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما له سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar fotohaati rabbil arsi an qad maa ibi